Assalamualaikum mbokk Sénégal ñew leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni maam ñooy sibu sët bi di Nuurul Murid ñu leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di leen wax ne nag ngeen abonné ci seen bi parce que njariñ yi nga xamante ne moo fi dugal am solo lool bëri na ñun doon def siñ dañu message ñu wax si njariñu mbaam ndax mbaam kat maanaam lu bari njariñ la te mbaam ku ko xam xam ne maanaam euh, ay njariñam boo ko xamul rek maanaam nga umbale ci moom mais mbaam lu bëri njariñ la mën nañu waxtaan fi ba suba sax du jeex waaye nag tey nag dinañ dikk génn jox leen ci ay njariñ yu bëree bëree bëree bëri bëri waaw ci wàllu mala yi waaw ndax euh, lépp loo gis yàlla sàkk ko rek am na lu tax mbaam nag secret bi euh, la wala benn kun liggéey ba nga xamante ni yow yaa ngi nekk ci diggante dund ak dund ak dee te yow benn diggante dund ak dee googu nga nekk liggéey képp lan la def liggéey maam ci maam lan laa liggéey rek wala ñu takk la wala benn maanaam euh, ñu sëf la ba nga xamante ni yow maanaam maanaam sa yaram bàyyi na xam nga buñ la sëfee wala ñu takk la wala ñu daal di jugg yu demee noonu sa yaram day bàyyi maanaam juru nga dem sëriñ juru ngay wax ni mu bind la dara da nga yëg ci kaw mbaam nga wàcc jaar ci ron tànk yi boo jaar ci ron tànk rek ba génn maa ngi bu doon dañ laa takk wala liggéey la wala ñu sëf la wala ñu wooj la wala loolu la mën a def wala dan laa nopp nu mu mën a doon ci wàllum xamam xam bu ñuul boo jéggee ci kaw mbaam wàcc jaar ci noonu tànk mu dëñ te nag boo ko defee ci sens lay dañee waaw borom xam ne indiwaay nañ ci mbaam ba tey ne nit boo amee aajo aajo wax da nga kaa am ba sun mu tëw faju wala loo xamante maam yaa ngi ko lijjanti ba sun mu tëw faju maanaam dinaat ba ci nopp mbam ba ci nopp ndajor ba aaju ja nga wax nga tari ben fatiha aaju ja nga bëgg aaju ja nga bëgg mu faju nga wax ko nga nga wax ko nopp mbam taf ko ci bayiko ko boko defé inshallah allah rabbi ak lu mëna doon ak aaju ja rum reey reey reey reey dana faju ci lu gaaw inshallah allah rabbi kon mbam dafa bari njariñ waaw ba ci manam euh, nopp mbam wa loolu nak xamna naa ne du joxe lepp parce que dafa doy war ndax euh, nopp mbam mom xam nañ ci loo xamante ni maanaam euh, du ma joxe lépp ndax adduna bi ñëpp yemuñu waaye ni ma nga wax secret mu def loolu moo tax waaye nag nopp mbaam nopp caamoñ ba am na loo koy liggéeyee am loo ci laxaas koo ci nii maanaam bu doon bu doon comme loo xam ne mbëri làmmiñ lay arrangé sax mbëri làmmiñ lay arrangé waaye koo ci xool galaaj gu mu am day toj sens nit loo am am galaaj galaaj maanaam euh, am na ci nopp mbaam loo xam ne bu nu ci xoolee nii maanaam sa galaaj toj waaw kon mbaam maanaam dafa bëri dafa dafa dafa bëri secret waaw moo tax comme sàng sàng li mu leen wax rek maanaam li nga xam ne ko ci liggéey ci wàllu police xam nga mbaam mu dugg police moom mosu leen koo gis mbaam mu dugg moo tax mën nañu cee liggéey loo xamante ni maam tant que mbaam mu ñu ko yow kenn du la tëj mbaam mu tëj ñu ko maanaam yow nit du la tëj waaw waaye nag waxuma dem di tooñ ba neex la nga ñëw ne daa bëgg nga ñaama kenn man moom doxee ma ci yooyu noonu man nit mom ci djub rek ci la ande yow ak ci dëgg waaw kanya tamit manam genu kaña xam nga genu kaña day am lu wex lu wex non boko ko daggee nga xass ko perkaan nga tak ko ci ndig nit ki ndig lu mu am lu mu meuna metti metti metti metti bu mu dem hopital bu mu dem fenn da fexé am lay wex te genu kaña rek mu laxas ko sagaru mu tak ko ci ndigam su ko defé inshallah rabbi lolu lu mu meuna don ci aduna maam ndig luy metti lolu dara ko dana ki ben tamit ah, li nga xamante ni moom dana ma ko laaj itam bëri na ci wàllum ci wa ci wàllum mbaam waaw maanaam euh, télé góor gu télé maanaam góor gu télé nga xamante ne maanaam yow mënuloo dara wala nga bëgg am kàttan sa xam ne mbaam kenn mënu ko tàkk xala mbaam kenn mënu ko tàkk xala te mbaam mu télé tamit ah bu dee mos ngeen ngee gis moom bëriwul waaw mbaam moom yàlla bind ko mbur muy télé moom saw mbaam boo ko amee nga raxal ko sa saakare moom incha allah yow nëpp nga télé ci àdduna te da ngay am kàttan saw mbaam nga ko sa saa yow noppe ngaa tëlee ci aduna te kenn du la mën a takk xala xanaa ñu takk mbaam xalam te mbaam bu ko tëggul xala yow dana la mën a takk xala defa nit am jabar bam ne ko nga dégg ñu ko takk xala wala buur ak may ga daan takk waaye limay wax ni ko def ya, ku jël saw mbaam nga ko sa saa kër maanaam jeex na yow moom manam kenn du la takk xalam ci ci kii waaw mais tam ñi nga xam maam da ngay faral di jaay pour bëgg mu jar ci mbaam ba tey waaw mbaam muy daw lay doon nag mbaam muy daw waaw nga tibb si ñeent tànk yi comme ni muy dawee noonu rek ni muy dawee di gas noonu nga tibb si tànk bi tibb si tànk bi tibb si tànk bi tibb si tànk bi boole ko parfum boobu parfum aaroo na rek wala parfum bu neex nga waaye da ngay jël da ngay jël parfum bi nga kii ko kii ci suuf si ah, kii ko ci si ba ba suuf si tooy noonu nga def ko saafara di ko wis place bi waaw foofu moom mbooloo du fa jóg moom incha allah rabbi waaw loolu moom ko def ci wàllu mbaam moom mbooloo du fa jóg ba tey kër goo xamante ni tamit maam da nga kaa bëgg a sàcc dafa fa dugg seetaan du dugg waaw da ngay bina ñe juróomi alam tara kay fa fa nga bëgg a fi juróom bam jeex waaw benn bi nga def ko ci ci ci ci nopp ci nopp ci nopp tamon bi bi def nga def ko ci nopp ndajoor bi bi def nga def ko ci bët bi def nga def ko ci ci gémmiñ bi bu pare nga laxe ko sagaru xonq ni nga sul ko kër googu mom mo mën a waye manam nit ko bon sax nit ko ay tamit dafa dugg waaw loolu lépp si njariñu mbam la waaw mbamu fatul bopom daa moo xam moom da ngaa dox ba gis ko mu faatu fa mu tëdd nga yëkkati ko tibb sa suuf soos noonu sangoo ko ku la liggéey faatu kenn du la mooy liggéey ci àdduna waaw wala bi da bëgg nag maanaam euh, bu la liggéeyee mu ma maanaam mu dellu ci ko nga liggéeyoon boobu da ngay wuti sibritu mbaam rek nga suuroo boo ko suuroo rek jeex na ku la liggéey ci àdduna moom day tourné waat rek ku la liggéey moom day tourné kon mbaam dafa bari njariñ moo tax des fois da ngeen gis dara te du leen xam secret waaw ba ci dàll mbaam waaw mën naa noot mën naa noot mën naa woo ci ba nga xamante bu nekkoon Europe dàll mbaam mooy weewi weewi am na looy liggéey doo xamante maanaam boo ko ci boolee maanaam nga sox ko ci dàll mbaam bi nga suuf ko nit bu nekkoon Europe wala mu nekkoon fu mën a nekk ci àdduna boo ko defee mu fekk si la waaw ci lu gaaw nag waaw boo ko defee mu fekk si la yooyu xam la yoo xamante ni maanaam xam-xam yoo xamante ni maanaam yu yu nëbbu la yu nëbbu la waaw waaye na comme que gars yi siiw seen dafa bëri moo tax ñu ne nañ ci maye loolu noonu rek wax dëgg yàlla waaw que xam-xam tamit dama daan faral di wax ne xam-xam nit boo amee xam-xam da da war a jar jariñ doomu aadama yi waaw waaw yéen ñi daa ñëw tamit numéro bi maam mi ngi noonu 776 776 37 ma ma ne tubaab la tubaab lay nekk waaw 776 37 waaw waaye daal li ma faral di wax mooy maam bari na njariñ ba ci nit kuy wut xam-xam bëgg xam boo xamante ni maam nit du la ko jox fexe ba am bopp tan parce que tan dañ koy gis mais tan lu am xam tan ak baaxooñ maam dana bëri xam-xam ak kattan waaw mais tamit ñi bi maa gis li maa gis rek pour yéen ñu bëgg a gis fexe bu bopp bopp tan di ka ngeen waaw lépp lu nar a ñëw ci àdduna yàlla na la ko wan waaw parce que des fois gis ni maa gis li maa gis li maa gis li bopp tan ko ngeen noonu rek loolu lépp loo lépp loo maam mi ngi ngi kii rek mi ngi ñëw yàlla nga la ko wan waaw ba ci daan tamit maanaam képp koo xam ne da nga bëgg a yëkkati ko ci kaw ñëpp dégg la fexeel ba am tàggum tan ak reeni ah, ki, reeni ah, kii waay garab boobu tamit gudd rek ah, damay fàtte ron ron waaw parce que ron boo xoolee buy jóg day jóg rek day jóg rek te tàggum tan tamit maanaam du suufe ca kaw lay nekk nga fexe ba am ñaari reen nga sangoo insya allah rabbi kenn du la mën a kenn maanaam nit ñi dañuy dégg rek waaw ah, te kenn du mën ceew dara ba ci bëy xam nga bëy daa bëri wax lam ñam maanaam day wax rek bu bañee cat jàpp la nag xam nga cat maam pour mu mosul si maam yombul fexe ba mu lam ñu bëy bi nga tàpp ko si bi billahi wallahi taala maanaam nit du mën ceew làmmiñ du mën dootu mën ceew dara waaw ah, ah, waaw làmmiñu bëy nga jël ko nga tàpp ko si ndig nit dootu mën ceew dara waaw lu mu wax waxob soo ba ngoon day tag rek du as ceew daa bañ bay moom ko jëloon nga tàkkoom jeex ya. na ba ci gileem tamit waaye gileem moom damay faral di wax ñu bëgg falu bëgg nekk maanaam xamante ni dina bëgg àdduna gis leen wala benn ba tey maanaam ñu bëgg maam yëkkatiku wala benn fi nekk bëgg nit baaxee manam ay secret xam boo la ko defee day jege seen bop té ñi bañ ku leen liggé fexé leen bind ñet saar yi amul kaaf rek ngay dëkk sango di ko naan inshallah rabbi manam njabar du mën ci yeen dara képp manam ku leen jéemal lu bon té mu jékk ci kaw du mën ci yeen dara ah, waaw waaye ah, daal xam-xam moom moo dama daan faral di wax yéen ñi anniversaire manam gis ngeen anniversaire ci ñu bopam ñu bari ñu ngi koy def maanaam bis bi nga judd bu nekk mën neub nëbb nga ko nëbb bis bi nga judd bu nekk mën neub neub di neub ndax gis nga bis bi nga judd nit mënu faa mucc bo gisee ba nga xam ne bëri maanaam daan nëbb maanaam daan bu bis bi nga judd ñu lay wax naan la manam bis bi boo ko juddee maanaam fexe bu ko bu ko kenn xam nga xam bis bi nga judd manam bu na ci même liggéey ba sax bo maanaam da nga saa sax mën na la jàpp est-ce que maanaam bo dégg ba xam dina jox safar naan la sangoo ko set sour xam lu ci si jublu jublu si moom da nga war a sangoo seet de dafa am manam nit manam bo beugé lu la jariñ bis bi nga judd manam ak lo meuna sango bis bi nga judd boko sango be ba lu la jariñ da lay jariñ motax ñuy wax la naan sango ko set suuf ndax dimanche alterne alterne trente alhamdu aljuma ba bisu ñu ñëwaat xam bis boobu moom boo ko dee set suuf bis boobu moom da lay leer bis boobu faaw dañ ci judd mom faaw mom ben bis ci dugg ci mom mënu cay genn mom wa bis yoy mom mënu cay genn motax nak manam faaw ñu la maanaam euh, manam bis yoy ci sango mais boo sangee boo sangoo boo sangoo juróom-ñaari juróom-ñaari fan nag bis ba nga judd bis ba nga judd si bis yooyu noonu sango waale nga moo xam nga xam nga moo xam nga ñàkk ko xam moo tax ñu naan leen xel waaw waaye boo amee xel dëgg ci anniversaire bis bi mu judd boo xamee loo sa def nit ki mu jàpp ko ak yére leen leen fonk seen yére bu leen ko bàyyi mooy sàgg na waaw yéen jigéen surtout yéen jigéen yéen jigéen tamit maanaam yéen ñi ëmb di la ma dox timis ak dox digg njool loolu baaxul parce que rab dafa bëgg mu foor dama daan faral di wax ne maanaam gis nga rab du dugg nit saa dara rab bala mu la dugg day xool ba xam ne yow mi dara nga ceew mu dugg la di la yàqal waaw rab képp ko mu dugg rek amul na lu nekk ceew bu la bàyyee xam ne ne bis bis dina ñëw nga nekk njiitam réew wala bis dina ñëw nga jiite dara wala nga jiite dara mu yéen elef yi jëleen fongu seen bopp maanaam euh, di moytu dox bu bëri ak wax yu bëri waaw bu la ko defee rek di ngeen noppalu wax dëgg yàlla bu la ko defee rek incha allah rabbi di ngeen noppalu waaw waaye nag ku jigéen goo mu ne mooy dox timis ndox digg njolloon baaxul waaw ba tey jigéen bu bëgg am doom reeni doo ah, reeni doo baari ba ko wutee di ko baxal di ko naan jëndee ko fatiha rek incha allah yàlla suñu borom dina dina ko kii waaw kon mbokk yi xam naa ne dañuy yem foofu yéen benn rek tey dinañ indi doon di la ñaar jàmm bu baax a baax di wax ne yàlla yàlla dafa jàmm bu baax a baax di leen jox numéro téléphone bi 76 776 13 37 waaw Noor Baye noonu kon jërëjëf